wàllu police fa day ah! am na njiit lu bees de le mandat yéene kaane maam Seydou Ndour lay lañ ko daal di kon installé dans ses fonctions dëgg la critique yéene kaa ne waaye moom maam Seydou Ndour moomee waaw nee na daal la mu bëgg nag ca wàllum police bi la léegi-léegi ni la waaw mooy xeex lu jëm nag ci wàllum wuyu gi nga xam ne kon ñoom ñoo am nag ci réewum taax di wàllum délinquance urbaine bi la Ndour wàllum mbirkaan yamu ca ndaxte njiital police bu bees bi day waaw nee na dana def kéem talaay kàttanam ngir police bi la gën a jege nit ñi looloy dëgg bi la wi waaw source a nee na Adama Faye day ngir nag ñu génne ko kon de recherche bale waaw njaboot ko taxaw na de cotisé na de dama ne la Mansour Faye day ndar la jógee Ibou Faye daa tukki woon waaye daa dikk doomu ndey koy jur les écoles yéene kaay ne waxtaan ba juboo day waaw moo mujj am na ci diggante Adama Faye mi lée ak kam joteel ca wàllum terrain boobee di taala faal nekkati coow li lée 2021 la yéene waaye mbir mi amul ay mbirum escroquerie de déet déet ay mbirum trian amu ca aha waaw dama la Adama Faye mi ne daa jaay Talla Fall téere deux cent soixante quinze millions Talla Fall daal di avance cent dem ba biir bëgg a waaw kay waay Adama ne ko litige amu fi te boo bëggee jot say këyit di nga ma jox li des rawatina titre foncier bii boo joxewul lu des doo laal dara waa ji le di taala faal day daal di yóbbu nag Adama Faye mii ca gendarmerie laa la wax waaw waaw xaalis boobee la Adama Faye remboursé waa ji doy na waar li doy waar kay libération yéene kay nee na gis ngeen projet wu deuxième usine uk dessalement de l'eau de mer bu grande côte bi lée Aquaport waaw benn contrat en boo xam ne day nañ ko defee daal dara dara dara dara dara jaaru coo yoon naa wax yow ab contrat boo xam ne day conseil d' administration wu waaw da koo le 20 mars 2024 laa la wax te vrai conseil amul te loolee taxi ci boppam kon ñoom ñoo ko wax te ña nga ko signé nag mars. dama ne la ca digg réunion conseil d'administration waaw ak jàppal bàyyi leeg maa bañ ci la ministre hydraulique waaw daal di wooyee DG ak PCA wu SONES sàkku ci ñoom PV boobee ne leen na dikk dix-huit heures wala dix-neuf heures Mafal Fall di représentant ah. ne leen ku nekk nag assumé waaye jàpp leen ne day bu subaa daal bu mu am layam-layami muy ministre muy administrateur corps de contrôle état bi dana convoqué ñëpp ku ca ne lan nga laale ci dossier kon ni wax te gis nga société saoudienne bi waaw daa waroon a jaayee mètre bu doo bi laa la wax ci quatre cent quatre vingt six francs waaw te prix actuel bi mi ngi nekk ci cent quarante neuf virgule cinq mètre cube bi waaw projet ba normalement lu tolloo junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards la war a coûter état bi de la ilaha illallah boo ca dugalee wàllum subvention location bi waaw site bi exonération matériel ba ci trente ans moo taxit président Bassirou Diomaye Faye nañ ko aj laa la nañ ko dakkal géré ko joomaay bëggul lëndëm nay leer saay sur ko di marché internationaux de capitaux yi lée waaw Sénégal day cey gaay kañ la réewu nit ñu ñuul ñi la di tàggali ko ak ay bor dama ne la jëlati nañ de lu tolloo quatre cent cinquante milliards ilaha illallah Birahim Seck forum civil ci libération yéene kaay waaw daal di nay sàkku ci ministre finance di Cheikh Diba ne ko kaay fii daal di ñuy leeral lan moo tax kon ngeen tànn JP Morgan Londres transparence nay leer guerre Birahim Seck ne ba léegi ni la mi ngi fi toog rek ba léegi ni la jafe-jafe woo mi ngi fi toog waaye yow ana ñi ko doon laaj Direct News ne réorganisation service de l'État day waaw présidence ak primature ah ndax yàlla ñu xam nag léegi daal ku ci ne lan nga yor waaw dama ne la décret ba day daal dinañ koy siiwal laa la wax tribune yéene kaay ne décret boobee nga xam ne kon moom lañ doon wër daal ci wàllum répartition service état bi waaw dama ne ba génn na Direct News Sonko Sonko Diomaye waaw daal dina ñuy jóg na ngir wàllum organisation service état bi la diggante primature ah waaw parce que nag jàppal le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent boos wutalaat nañ ko turde léegi day bureau opérationnel de coordination et de suivi la ainsi l'observatoire national de l'investissement ONU primature gëlé moo leen di gérer Ousmane Sonko dëgg la bureau de prospective économique BPE nekkoon primature day waaw daal di nay tëpp waaye cabinet du ministre en charge suivi du plan Sénégal émergent tëpp la organisation bi la day li muy wane mooy jéego bu njëkk a ngi nii gaañaa nga jëm nag ca projet gouvernemental ba ñëf waaye wàllum organisation bi ah wane wul ab rupture systémique parce que am na fi ay kër yoo xam ni structure koppar ga fay dem bëri na ña nga continuer kon dalal ay DG ak ay coordonnateur ba léegi ni ne changement systémique le mandat yéene kaay ne conseil supérieur de la magistrature day waaw monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye retirez-vous wu ay waay génn fa waaw waaw parce que assise kat waaw lañ fa waxtaanee jubóo day bëri na gis nga conseil supérieur de la magistrature googee président dafa war a nekk waaw wala déet bokk na ca jafe-jafe ya waaye nag jàpp ne ana li ngeen digoon kon askan wi jomaay jomaay mooy Sonko waaw changement systémique gis nga promesse yooyee waaw da ko war a tenir laa lay wax ni leen a fi waxoon ne appel à la candidature anamu yéen a kaa le respect de la parole donnée ak diggée amal ko day loolu sax sa njariñ la loolu ci changement systémique ci la bokk tribune yéene kaa en tout cas Alioune Tine day waaw jéego yi njëkk yi xam ne kon nguur gu bees gi la ko def ah njiital rado woon de Alioune Tine nee na ginnaaw nag bañ ci fekkee teewe ab état agressif xanaa loolu ma kay ko moom waaw léegi nag ab état pacifié moom la ñuy taxawal nii waa lu tax Alioune Tine ci la ko ne ah waaye xoola gars yi ni ñuy tànnee poste yi rek on a l'impression qu'il se met en place petit à petit un état pacifié boobooy benn ñaar Ousmane Sonko mi lée jaar yoon légitimité waaw ànd ca doole ju bari joomaay fay bor la yoreel askan wi une dette aha Alioune Tine waxtu samay kàddu de bés fi le jour waaw ne Sénégal day ba léegi ni la amul bibliothèque nationale maar day taali dama la projet ba ma biir tiroir ya nguuru Sénégal gi day ma ngay jëndaat nag bibliothèque u ba dina ñëw ci Sénégal gi la dootul yàggati dara Ibrahima Lo ne bibliothèque nationale day waaw benn la ci farata yi nga xam ni suñu njiit yi bees yi la ña nga ca de professeur Bernard John waaw nee na Senghor day daa amoon yéene tabax kon ab bibliothèque nationale depuis waaye nguuru Sénégal gi ba fii ñi ngi dund wàllum santas laa la wax allahu université bi lée waaw am na juróom benn fukki at soixante ans genn wàllu million ci ay document un million trois cent vingt trois mille cent quatre vingt une visite par an atu yàlla gannaaw ba ñu caxat-caxatee kon bibliothèque boobu kaay leen ñu delluwaat kon ca bërëb ba xool retour sur la scène du crime critique yéene kaay ne état partisan ou état pastefien en tout cas ba day ma ngay wan naa su kon anti système ba laa la wax aha waaw parce que yorin gi nga xam ne nag maanaam moom lañ ci doon seetlu day par parparloo gañoo ensemble gouvernons ensemble waaw ku muyee la mayoo ñu yëkkati dara jox la daa mel ni nguuru ñoom sonko gi ca la ne de te bu loolee amee day aucune nouveauté systémique waaw mais gars itam lan lañ bëgg nag boo leen xeex gagné doo leen ànd xeex gouverner est wal fajiri ne en tout cas day sonko jomaay jomaay mooy sonko waaw ña ngay wax de maar di taali ci lu jëm nag ci wàllum nomination yi lée ak agence dañ ne woon dañuy def ay fusion des agences ngir mën a sakkanal Lamine Sène waaw ñi nga xam ne nag dañ doon xaar ñu jël agence yi nga xam ne kon dañuy yëngu nag ci wàllum emploi ak ay financement des jeunes ak femmes dañ leen di boole bu yowoo geen dem toog de aha waaw waaw ah yow ANPS moo ngi ni jëleewuñ fa Tamsir Faye fa Sina Amadou Gaye BND jëleewuñ fa Abdoulaye Niane yóbbu fa Mamadou Faye DER bële yóbbuñ fa Aïda Mbodj last en tout cas Juan Branco day dootu ko defati de ma ne la conférence bi nga xam ne moom la doon amal kon sa CICES ni gi démb waaw dañ koo jasakalisé de maari di taali nit dee nekkuñ fa woon la Sonko Mélenchon amoon day Juan Branco amu ko démb di laast tey daal xam naa ne dinaa leen defal kon njàngat diggante Karim Wade mi lée ak Amadou Ba kiif kiif même bu dee sax mën nañoo yor am réew waaw zéro audace du ñu wàcc sur le terrain du ñu xeex yéene kaa gi ne surtout nag Karim Wade mi lée aha dama ne la Amadou Ba Karim Wade yëpp dañoo a nekk ci biir xolu sénégalais yi lée te du ñu wàcc sur le terrain laa la wax aha yéene ne exemple lu Karim Wade mi de koo gàddaayloo ca Qatar 2015 ni la Karim dellu suul ci réew mi déedéet te loolee kat lay taafantaloo de nekk ci gi indiwaat na ko bu yàgg jaaree ko kon ci wàllum code électoral bii nga xam ni kon soppi nañ ko dëgg la boolewaat nañ ko ci dama ne la doomu Abdoulaye Wade gi tey ba fii tànkam ci réew moom daal partem beeg ay nitam ci bi rek la ko téye whatsapp whatsapp Karim Wade daal ay communiqué yu kenn xamul yor parti baayam bi la indiwu ci dara Karim Wade moo indiwul dara ci li fi bàyyam liggéey laa la wax parti bi di dee saa bu ñu xëyee PDS di gën dee responsable yi laa la wax nii di dem parce que mënatuñoo supporter Karim Wade ni nga xam ne noo ne la yoree réew mi laa la wax nit ñi saa bu ñu xëyee di jóge ci parti bi Karim Wade ci boppam moo amul benn projet politique bu leer buy wanee ne kii day jëli réew doy na waar li doy waar kay critique yéene kaay nee na ñi nga xam ne dañuy def jalis day mbir mi metti na toog ñetti fan laa la wax di xaar sa allahu akbar dem naa ca football ba sur quotidien ne éliminatoire mondial 2026 c'est day waaw stade bi dee démb maar day taali Sénégal 1 RD Congo 1 évidence yéene kaay ne projet ba day nul stade yéene kaay ne loolee day leen jëlee démb ci stade ba Sénégal 1 Congo 1 <laughs> miti woon na nag waaye dee ak lu miti miti miti miti miti miti miti miti miti suul gaz du ko xeeñ